def eh, di profiter ci occasion bi pour gërëm eh, sénégalais yi gërëm bépp wa kaolak eh, di sakku ci borom bi mu defal ñu ñu voter ci jamm def nañ campagne ci jamm donc may ñu ñu voter ci jamm euh niñ ko tambalé vraiment ñu ñu terminer koko donc fi école Ngane Sayer fi may voter depuis toujours au bureau numéro 1 Nous, tay tey euh, accomplir suma devoir de citoyen donc euh, euh, nit mel ci jamono daan na nous mais tay mom da ngay rek bi voter ne waral mais amna que citoyens yi génn massivement ci pour accomplir ses devoir parce que euh, député la ñuy voté assemblée nationale la ñu war a assemblée nationale mooy institution bi gën am solo ci Sénégal il faut que askan wi xam ko il faut que citoyens yi xam ko xam que bu ñu ñëwul voté massivement boo moytuwul ñi fi nekk actuellement ñoo fi continuer di nek parce que ñoom am nañ moyen yoo xam ne transporter ces nit ñi pour ñu dem voté ji donc damay ñaan askan wi ñu génn bu fekkee ne dañ bëggu assemblée nationale nekk assemblée nationale de qualité nous changé ñi fi nous député dañuy député député gouvernement bi la député ben Bokk la ñu génné len fi tek assemblée nationale massivement occupée par l'opposition nga xamné dinañ fa euh, sénégalais yi waye duñ fa parti wala ay nit.